li mu doon ci yoon wi. li mu doon ci yoon wi. li mu doon ci yoon wi. nga xam ne sëriñ Touba ko teg. nga xam ne sëriñ Touba ko teg. sëriñ bi. sëriñ bi. moo tànn suñu mbàkk. moo tànn sëriñ Mbàkke Bousso. tànn maam Thierno. tànn maam Thierno. ni suñu Mbàkke Bousso. ni suñu Mbàkke Bousso. diine ji. diine ji. ak Touba gii. ak Touba gii. dénk naa la ko. dénk naa la ko. maam Thierno. maam Thierno. doom. doom soxna soxna yi taalibe yi taalu bi yëpp yëpp teg naa ko sa loxo teg naa ba tukki ba ñëw ba tukki ba ñëw ñoom xamoon nañ ni suñ bi day del siwaat ñoom xamoon nañ ni suñ bi day dell siwaat am na yu yoo xam ne suñ Mbàkke xamoon na ko boo demee ba ñëw na nga am na yu ko jiitu yu dekkale loolu yoo xamante ni suñ Mbàkke xamoon ni ginnaaw liggéey wax na ko suñ bi ne ko ne ko boo demee ba ñëw nangam ak nangam ndax wax na ko suñ bi ne ko boo demee ba ñëw nangam ak nangam sëñ Tuubaa bi fi nekkee sëñ Tuubaa bi fi nekkee dañ ñëw dafa woo sëñ Modou Moustapha. dafa woo sëñ Modou Moustapha. woo sëñ Fallou. woo sëñ Fallou. ne leen. ne leen. la daan am. la daan am. bu amee. su amee. Mamadou Moustapha. na ma Mamadou Moustapha. Mamadou Moustapha. Mouhamadou Moustapha. teg ma ci sa loxo Baye Mbacke. teg ma ci sa loxo Baye Mbacke. loolu laaj sawal. loolu mooy sawal. sëñ sëñ Abdoulaye ci boppam bi mu toogee. sëñ Abdoulaye ci boppam bi mu toogee. bi muy jox maam yi kii barab bi. bi muy jox sëriñ Njaaña bu sa barab bi. dafa woote. dafa woote. daal di wax ne keroog bi ñu andee sëriñ bi Touba. daal di wax ne keroog bi ñu andee sëriñ bi Touba. tëral ko. tëral ko. nee na kilifa yëpp nag yëpp a teew. kilifa yëpp a teew. ku dul sëñ Modou Moustapha. ku dul sëñ Modou Moustapha. du sëñ Gaawaan. du sëñ Gaawaan. du Cheikh Ibra. du Cheikh Ibra. teew na teew na. nee na sëñ Mbàkke na ñokket. sëñ Mbàkke na ñokket. dugg ci bépp gi woon ci biir jumaa ji. dugg ci bépp gi woon ci jumaa ji. teg ci gannaawam. wéeru bi nag ci ginnaawam. daal di dox fukki jéego ak ñaar. daal di dox fukki jéego ak ñaar. muy six mètres. bi mu fiy nekk. muy juróom benn mètre. muy juróom benn mètre. mu def nii tànkam. mu def nii tànkam mel ni koy summi. ne fii de la ma waxoon. ni fii de la ma waxoon. ñu tàmbalee gas. ñu tàmbalee gas. bañ gasee. bañ gasee. baaw diir. diir. ñu jot benn ëkk. ñu jot benn ëkk. sëñ Madou Mbène ah ëtt bi de mën na ko sëñ bi def loolu. sëñ Madou Mbène ah ëtt bi de mën na ko sëñ bi wut loo woon. nan la ko def déet man la ko fi def loo woon. Cheikh Cheikh Ibrahima la ko gajjloo ci armée bi. Cheikh Ibrahima la ko gajjloo ci armée ya. waaye da koo sànni yóbbu yóbbu ci kësuñ sëñ la ko la ko. waaye da koo sànni ndax ci kësuñ sëñ la ko yóbbu loo woon. yóbbu sëñ bi jógal boppam. sëñ bay jógal boppam. guddi. guddi ànd ak sëñ Madou Mbène. ànd ak sëñ Madou Mbène. day jël bant bi. day jël bant bi. ñëw sëñ bi ne ko gasal bi. sëñ bi ne ko yow sëñ Madou Mbène gasal fii. na taxaw. ma taxaw. te lu yàgg-yàgg bu bu bu bu bu bu mu feeñ. te bu lu yàgg-yàgg bu ko kenn xamagum. bu mu feeñ déet boobu dara néew. boobu dara néew. ngelaw ngelaw li ëf ko lay bañ. ngelaw li ëf ko ba mu sullee ko lay bañ. li bañ defee noonu ba ba tam suñu mbàkkee ne fii la waxoon daal ñu daal tàmbali. ba suñu mbàkkee ne fii de dama waxoon ñu commencé di gas. bañ defee defee defee ba nga xam ne bii waxtu fajar jot na. ba ñu defee ba nga xam ne waxtu fajar jot na. Ibrahima Gueye nekkoon ci jàkka ji noddoon Ibrahima nekkoon ci jàkka ji ngeen nekk daal di noddu suñu mbàkk dégg ko foofee suñu mbàkk dégg ko foofee daal di wax ne ah suma sang bu daal di ah sama sang bu na ma newoon na ma mbàkke busu mbàkke looy def looy def ba waxtu julli jot ba waxtu julli jot bàyyi ko di joxe waxtu bàyyi ko di joxe defaru leen ñu julli defaru leen ñu julli gaa yëpp defaru gaa yëpp defaru ñu jiite leen ñu leen moom suñu mbàkke jërëjëf. ba mu leen jiitee. ba mu leen jiitee. ba àggal. ba àggal. daan na bisimilah. daan na def. ñu def. ba suuf si demee demee dem suñu daam Abdourahmane Lo dem na xaaju. ba si demee dem suñu daam Abdourahmane Lo daal di xaaju. suñu mbàkk suñu keroog suñu mbàkk kàddu bi ni ab rajo la mel. ko suñu am laaj nee na ko suñu mbàkk kàddu gi wax daa na ngeen robo da ko daal ne Abdourahmane da ko daal ne Abdourahmane maag yow maag yow ak mën dumbe mii ak mën dumbe mii ba ñu sëñ Tuubaa di yar ba ñu sëñ Tuubaa di yar bisub tey jii taxoon bisub tey jii moo taxoon mu ni salu ñëpp ñu defar ba àggal ñëpp ñu defar ba àggal ba ñu àggalee ba ñu àggalee sëñ Mourou Moussa ci boppam sëñ Mourou Moussa ci boppam suñ daam Abdourahmane sëñ daam Abdourahmane ci boppam moo daal ne sëñ Mbàkke man kat du ma cagawu moo daal ne sëñ man kat du ma cagawu ku doy sëñ Tuubaa yaa ma doy ku doy sëñ Tuubaa yaa ma doy tamit dëgg nag tamit dëgg jox ko boppam jox ko boppam suñ mën du ma génne junni suñ mën du ma génne junni teg ci loxol suñ Mbàkke teg ci loxol suñ Mbàkke ko damay jaayante ni ko damay jaayante suñ mat jee Mbàkke def ko suñ mat jee Mbàkke def ko suñ Modou Faa Jama Ñang def ko suñ Modou Faa Jama Ñang def ko suñu affaire moom suñ gaaw an def ko suñu affaire moom def ko euh, suñ Mat Jee Mbàkke def ko. sëñ Mat Jee Mbàkke def ko. sëñ Mbàkke daal di waar leen ñëpp. sëñ Mbàkke waar leen ñoom ñëpp. daal di dellu si gade. daal di am weer ak tuuti. ba mu am weer ak tuuti. mu mu woole ñoom. mu waar leen ñoom ñëpp. ànd ak ñoom. ànd ak ñoom. dem ba fa suñ Modou Moustapha. dem ba fa suñ Modou Moustapha. daanaka Mamadou Moustapha. sa dongay bàyyi nii. sa dongay bàyyi nii. yéen it. yéen it do donga yi seen seen doomu sëriñ a ngi nii. donga yi seen doomu sëriñ a ngi nii. daal na sëñ Modou. daal na sëñ Modou. su ngeen jaaree tànk yee seen baay jaaroon. soo su ngeen jaaree tànk yee seen baay jaaroon. ñu topp leen. ñu topp leen. su ngeen ko jaarul. su ngeen ko jaarul. du du duñ leen topp de. duñ leen topp de. daan leen warmaan nag. waaye duñ leen topp daan leen warmaan nag. daañu leen warmaan waaye duñ leen topp. waaye duñ leen topp. yoon wi nii yëpp. yoon wi nii la dem. ñu ñu dem ñu ñu ñu sëñ Tuubaa bokkal wàññi. ñu dem sëñ Tuubaa bokkal waajur. nekk njaareem di ko ne daal kees. nekk njaareem ku ne daal kees. defe ne la daan am mooy am. defe ne la daan am mooy am. suñ mbàkk jóge fii. suñ mbàkk jóge fii gëdëm. dem dem njaareem. wala ñoom ñëpp. wala ñoom ñëpp. mu daal ci turu ka mag. mu daal ci turu ka mag. diw. diw diw diw diw diw yéen ak yéen ak Sëriñ Tuubaa yéen a bokkoon yéen waajur yéen ak Sëriñ Tuubaa yéen a bokk yéen waajur ba Maam Mor Sali wàcce liggéey ba Maam Mor Anta Sali wàcce liggéey bañ ko miraasee bañ ko miraasee yéen ñi kenn ku ne jël na wàllam yéen ñi kenn ku ne jël na wàllam Sëriñ Tuubaa da leen boole woon da leen bàyyi woon ak wàllam Sëriñ Tuubaa da hmm. mu yor Mamadou Moustapha mi lii yor sëñ Tuubaa jëlee jëlee ko ci Mor bi Sali. jëlee ko ci Mor Anta suñ Mor Anta Sali. lim ñoom do ñoom doon maamu si ne ñi kenn ku ne sëñ Tuubaa defal na sancal diw sancal na la dëkk sangam. daal di leen lim yéen ñëpp kenn ku ne sëñ Tuubaa sancal na la dëkk sangam diw sëñ Tuubaa boo bàyyi bàyyi leen Mourou Moussa mi ak këram. bàyyi leen Mourou Moussa mi ak këram. ab taaw. ab taaw. bu amee ñeent fukki at. ba amee ñeent fukki at. te dañu réer. te dañu réer. lu baayam yoroon mën na ko lu baayam yoroon mën na ko yor. sëñ Modou yoon sëñ Modou yoon waat ko. daal di woowaat doomi sëñ Tuubaa yi seen bopp. daal di woowaat doomi sëñ Tuubaa yi seen bopp. génne kurusam. génne kurusam. ñu leen yéen ñëpp. ñu leen yéen ñëpp. dama bëgg ngeen jébbalu ci Mamadou Moustapha. damaa bëgg ngeen jébbalu ci Mamadou Moustapha. ngeen def ni def ni kurusam. daay def ni kurusam yëkkati na ngeen def ni pere kurus. na ngeen def ni pere kurus. bu rot. bu rot. ba ca topp topp yoon wi tegu ci nocc. yoon wi nocc. loolu la Sëriñ Tuubaa bëgg. loolu la Sëriñ Tuubaa bëggoon. loolu yaakaar naa leer na. loolu yaakaar naa leer na. xalifa daa na ko xëccoo waaye léegi kenn dootu ko xëccoo. xalifa ko xëccoo waaye léegi kenn dootu ko xëccoo. fa saa sax am na sax ñu ne euh, ñu ne yonent bi sama sëriñ ñu ne nangam nangam ñu ne nangam nangam waaye ña jaayante woon ak suñu mbirum saa fa saa si. ña si saa sa. ku ku ne woote nga Sëriñ Tuubaa. ku ne woote nga Sëriñ Tuubaa. ku ne woote nga ko laa wax. ku ne woote nga Sëriñ Tuubaa. ku yi ñax yi mayewut day jaay mayewut day jaay ku jënd yaa moom ku jënd rek yaa moom nañ xam ni lii fi ne nañ xam ne lii fi ne ay caaxaan andiwu ko fi ay caaxaan andiwu ko fi mu rëy andiwu ko fi xel fit mu rëy andiwu ko fi fit mu rëy andiwu ko fi sëñ Tuubaa ci boppam moo moo jaayanteeg boromam sëriñ Tuubaa ci boppam moo jaayanteeg boromam ci kanam yonent bi toog ci kanam yonent bi toog ñu jox ko sart yi. ñu jox ko sart yi. mu ya mu nangu ko. mu nangu ko. ñu day ruu gi da laa xamul. ñu ngi koy ruu gi da laa xamul. ko. moom mi ngi fi. waaye fekk mi ngi fi. luñ ma teg ma teg luñ ma xam ne li am nañ ko am. bi ñu bi ñu tëjee jàkka yi. bi ñu tëjee jàkka yi. mais comme ay waxu nangam na ko ne. ñu xeeti corona gi mel noonu. dama xëyee fii laa taxaw. moom monsieur Omar na bu xëyee fii laa taxaw ci la ne ma tey julli aju ma ne ko loolu julli aju mu leen baax na mbokk wax ma ko mbokk mbokk wax ko ko ma ne ko waxoo dëgg mu ne ko waxoo dëgg fii fii ku yàlla bind mënu maa julli ku yàlla bind mënu maa tey julli aju ku yàlla bind rek ku yàlla bind rek baat ba sëriñ Tuubaa waxoon sëriñ Mbàkke ne ko diine ji baat ba sëriñ Tuubaa waxoon sëriñ Mbàkke bi ne ko diine ji dénk naa la ko dénk naa la ko ak dëkk bi ak dëkk bi bu fi dara xew bu fi dara xew ñëpp kenn ko ne suñu bi laa wut loo foo dëkk leen ñëpp kenn ku ne suñu bi laa wut loo foo dëkk moom nag fii la ko wut dellu bi gade 1918 ne ko ne ko ngaan leen lu yaatu ne ko ngaan leen lu yaatu ku suñ bisoo ba jur ku suñ bisoo ba jur bu dikkee wutal ko tool bu dikkee wutal ko tool wutoo ko kër wutoo ko kër ngeen bokk jaamu yàlla ngeen bokk jaamu yàlla ba mu am ñetti at ba mu am ñetti at mu door a woo suñu Modou Moustapha moom sëñ mu door a woo suñu Modou Moustapha moom sëñ bi woo suñu Fall woo suñu Fall ne leen dem leen Touba neen dem leen Touba fekk seen Baye Mbacke fekk seen Baye Mbacke Mamadou Moustapha boo demee Mamadou Moustapha boo demee na nga dem sa penku Baye Mbacke na nga dem sa penku Baye Mbacke wut fa lu doy wut fa lu doy yaag sa njaboot yaag sa njaboot bu julli ajuma jotee bu julli ajuma jotee seen Baye Mbacke jiit leen ngeen seen Baye Mbacke jiite jiite leen ci jumaa ji jiite leen ci jumaa ji Tuubaa ji ngeen ñëw julli ngeen ñëw julli moomu dafa la yow it moom moo fa mu daal ko doos moomu dafa la yow itam déedéet tindóo bi mooy tindóo bi moom mu ne ko moomu dafa la yow it moomu dafa la yow itam dama ci ndeyjooru si Mourou Moustapha dama ci ndeyjooru si Mourou Moustapha sañ sa sañ ci fa mooy mooy mooy ndindi mooy ndindi suñ suñ Tuubaa ne leen bu ngeen demee nag yéen yéen ñaar ñi tur boobu ngeen fa fekk sëriñ Touba nag leen bu ngeen di may ñaari tur wa ngeen fa fekk. bu leen ko soppi bu leen ko soppi. tax tundoo di soppi ku wut. di soppi ku wut. ndindi soppi ndindi soppi gi soppi gëdë gi tamit soppi ku wut. ñii wax day am lu ñuy ñuy wax. ñii wax day am lu ñuy wax te li ñuy wax xamuñu ko. la taxoon ma garanti ko sama rôle. la taxoon ma garanti ko sama rôle bi. sëriñ Touba fii la wooyee suñu Mbàkke. sëriñ Touba fii la wooyee suñu Mbàkke. mu fekk ko njaareem. mu fekk ko njaareem. mu ne ko Rasulullaahi ñëw na fi. mu ko Rasulullaahi ñëw na fi. ànd ak ulul azmi ñëpp. ah ànd ak ulul azmi wax yi jëti leen. aminul wax yi di Jibril jëte leen. te bu ñu ñëwee. ba ñu ñëwee. yonent bi ne ko. yonent bi ne ko. sa borom nee na. sa borom nee sariyaatu islaamiya sariyaatu islaamiya jébbal na la ko bis ni ki tey jébbal na la ko bis ni ki tey ba ba adduna tukki ba ba adduna tukki ba ba adduna tukki ba ba adduna tukki du nekk ci loxo kenn ku dul sëñ Tuubaa du nekk ci loxo kenn ku dul sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa daal di wax sëñ Mbàkke ne ko sëñ Tuubaa daal di wax sëñ Mbàkke ni ko Mbàkke Mbàkke dénk naa la ko dénk naa la diine ji sama xarit bi kat yonent bi kat moo ma digal sama sama xarit bi yonent bi kat moo ma digal naa la ko dénk ma jox ndigal moo ma dénk ko Mbàkke moo jox ndigal ni ma dénk ko Mbàkke bu ne ko Mbàkke mu ko ne ko Mbàkke mu ko suñ Mbàkke na ko suñ Mbàkke ne ko suñ Mbàkke dam bay bëgg a jóg mu ne ko dam bay bëgg a jóg mu ne ko Mbàkke mbaa mbaa islam di del si fi man jooy mbaa islam di del si fi man jooy mu ko sama bakkan bi mu ko sama bakkan bi laaj ndaw insha allah sëñ Mbàkke ngoog sëñ Mbàkke ngoog dañ ko bëgg a xam dañ ko bëgg a xam foofu la féete sëñ bi foofu la féete sëñ bi barabam bii barabam bii li mu ko defaree ba àggal ba mu ko defaree ba àggal yaasin laa bind wërale ko dafa yaasin laa bind wërale yaasin laa bind wërale ko yaasin bu matee yaasin bu matee xasida ko ko sëñ Tuubaa tagg moom xasida ko ko sëñ baa taggoon bu ne dañ ko fekk suñu ma ngi ko cay wax naa naa la ñaanal ba nga nekk njiitul maas bi. ba lépp loo bëgg nga am ko. sama yoon it ko la ci neex nga dugal ci ku la naqari nga génne. sama yoon yi tamit yaa fi dugalee di génnee. comme ne ko. comme kii yee noonu sëñ bi ne ko. mbàkke de lislaam. mbàkke de lislaam. yonent woon. yonent bi ko andi woon. gannaawam dafa mel ni lu booy. gannaawam dafa mel ni lu booy. lu ne na ci. lu ne na ci. ma agsi. ma agsi. dindi ëkk ya dindi ëkk ya dindi ñax ya dindi ñax ya dindi dëgg ya dindi dëgg ya defar ko lépp defar ko lépp ba mel ba mel ni ni ko yonent bi indee woon na ko suñu borom wàcce woon ci yonent bi na ko suñu borom wàcce woon ci yonent bi ma def ko ni ma def ko mbàkke nag ma jël sunna daal di ko mbàkke nag ma jël sunna ñagal ko tool bi ñagal ko tool bi benn buntu laa ko wutoon benn buntu laa ko wutoon mbàkke bu sa taxawal ci buntu mbàkke bu sa taxawal ci buntu ku bëgg ku bëgg ñaaj ci génne ko ci biti. ku bëgg a jéggi ñaaj bi génne ko ci biti. ku nekk ci biir bëgg bëgg bëtt delloo ko ci biir. ku nekk ci biir bëgg bëtt génn delloo ko ci biir. jërë ngeen jëf. li ngeen bëgg a xam ci wàllu xam-xam moom li ngeen bëgg a xam ci wàllu xam-xam moom commission li mën a wax moom gone xamu ko. Ah. li ñuy wax gone xamu ko. nangu leen ñaan. nangu leen ñaan. loolu dama xam. poniedziałki, bo do weekendu.